finale la Mboudaye Serrer, journée organisée par les Ndong borom Wago production Fiji ci Serrer, le 21 octobre 2023 finale ba nekk nous. fils de Badlen Siki ak nga ne Anta finale fii ci Serrer, Dibégué di bëgg Wow, waaw ndeysaan job Diop Mboudaye maa ngi lay ziar Ousmane Ndour Mboudaye Amath Loum ca Mboudaye ndeysaan ñooñu suñuy ami d'enfance lañ dëpp ci alasan di bëgg ñëpp di ziar ñëpp waaw nee finya, la Mboudaye buñ fi ñëwee war nañ fee suñuy suñuy di nuyuwaale sunu tons au passage fils dan balin dan na Modou Anta vite fait et bien fait Fils de Bathléne Sigi jël na lambu ji ci kaw ki xam ne mooy Modou Anta bu Mbul Jàmme waaw waaw Fils de Bathléne a ngi noonu moo jël lambu ji ci kaw Modou Anta bu Mbul Jàmme waaw waaw félicitations champion jaajëf. General TV, don't give me